cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëñ Abdul Xaadir moom sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñu fas yéene ànd ak moom nag ci thème bu am solo bu yitteel te mooy nettali gaay yu baax yi xikaayatu saalixina su ko defee nag incha allahu ni ñu ko baaxoo defee képp koo xam ne jaar na fi ñu xamle tuuti ci ay yëngatoom ngir xamle yëngatuy sëriñ bi nag sëñ bi mu ngi dale am njàngam ci kër yi bu Mbacké ci tuuba ginnaaw ba mu jàngee foofu ba mokkal alxuraan itam ci la tàmbale ci daara yi sëñ Xabibu ji nekk foofu ci ndigal sëñ bu foofu itam fa la jàngee njàngum xam-xamam nga xam ne daanaka mën nañoo wax ne njàngam bépp génnul tubaa lii ñu koy waxtaane loolu nag muy loo xam ne lu am solo la te mooy nettali gaa yu baax yi moom kenn la koo xam ne ku ñëpp miin la ci taqoo gi mu taqoo mag ñi nga xamante ne fekkoo woon nañ fi sëñ bi ak mag ñi nga xamante ne xëy na gannaaw sëriñ bi lañ ñëw euh, buñ ci tuddee nag doomi sëriñ Tuubaa yi te muy waa kër sëñ Tuubaa yi yaakaar naa dana doy sëkk tàmbale ko ci Cheikh Abdoul Ahad sëñ euh, sëñ Saalih Mbàkke sëñ Chouaïbou bu mii nga xamante ne ci loxoom la jaar euh, euh, lim ci yenn mag ñi yaakaar naa ne dana dana doy sëkk su ko defee nag moom sëriñ bi itam ñu xam le ne itam moom mooy imaam bi nga xam ne moom la ñu jox masaalikul jinaan mu di fa jiite ñaari ayit yi muy korite ak tabaski kon incha allahu taala bala ñu ko jébbal kàddu gi ñu xam la ne itam képp koo xam ne yaa ngi topp waxtaan yi rajo yi nga xamante ne mooy rajo yi nekk diggante Touba ak li ko wër dañuy jàllale waxtaan yi saa su nekk tàmbalee ko ci rajo Daarul Moxti bi muy fukki rajo ak juróom yoo xam ne waxtaan yëpp dañ koy jàllale saa su nekk tàmbalee ko ci rajo Daarul Moxti bi nga xam ne moom direct la koy def suba itam ci 14h itam da koy jàllalewaat mën nañu wax ne Baol Média itam direct la koy def Zik FM dana ko teg 14h 15h. Walf dana ko jàll 19h jant bi 0h iRadio 18 h demi RTS Diourbel dana ko teg 13h30 Benno FM Sud FM yooyu yëpp dañu danañ jàllale waxtaan wi. Lamp FM dana ko jàllale 23h UCAB FM dana ko jàllale 9h du matin Bawol Média dana ko jàllale moom tamit direct rajo Bambey dana ko jàllale 22h Carrefour FM dana ko jàllale 20h ji FM Kébémer dana ko jàllale moom tamit. leer gi FM nekk ca Louga moom tamit day jàllale waxtaan yi RTS Touba itam dana ko jàllale 9h Touba Fall FM moom tamit dana ko jàllale 8h matin su ko defee rajo yi yëpp dañ koy jàllale bu dee chaîne télévision yi itam danañ ci mën a lim lu mel ni ki Touba TV moom dana ko jàllale bis bu set. Lamp Fall TV moom tamit dana ko jàllale 1 h su ko defee chaîne YouTube yi ñuy lim itam yëpp dañu koy def direct ci waxtu yi ñu toll toll mën nañoo wax ne. ñi koy suivre ci àddina bi ñoo ëpp sax ñi ko ñi ko ñi fi nekk di ko topp tàmbale ko ci Alwafa Daaru Muxti dana ko def direct Touba Vision Baye Daaru Média Xam Sa Réew TV Bichri TV Alxadimiya Bawol Média Facebook bu Alwafa itam dana ko jàllale fukki groupe ak ñaar ci groupe bi WhatsApp itam waxtaan yi dafay jaar kon yaakaar naa ne waxtaan wi lu yaatu la lu am solo la loo xam ne euh, thème yu mel nii bu ñu ko fi dee traité itam yaakaar naa ne dana yitteel mbooloo mi yëpp ñi ko doon xaar yëpp kon incha allahu taala sëñ bi teew na li ñu def mooy dañ koy jébbal kàddu bi su ko defee képp koo xam ne itam am na laaj bu aju ci lii nga xam ne moom lay waxtaane bu ko bindee andi ko itam bu ko waxtu mayee rek incha allahu taala danañu ko jàllale ñu ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiix te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina a mustaqim siratal ladina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalliin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ismahu li fi lbidaayati an atawajjaha ilaykum wa ila jamihi almuslimina fi anxaai alxaalam fi anxaai alaalam bi taxiyati wa taqdir wa tahaani kul haamin wa antum jamihan bi xayr mbokki jullit yépp mbokki lislaam yépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mboolem mbokki Daaru Muxti yépp di teg loxol nuyoo bi ci loxol suñ bas mii mu matale àggale ko suñu bàyyi bi nga xam ne moo jiite dëkk bi di sëriñ Basiiru muy àggaleel ñu ci suñu siyaar matalal ñu matalal ñu it ci mboole mbokk yi jullit yépp suñu siyaar ci bis bii nga xam ne dañoo ñëw fii nga xam ne sëñ Modou Moustapha dafa waxoon ne maam na mooy pekkub sëñ bi pekk fekk nag la mag gën a fonk te di ko denc fa la ko daa denc moom la ñuy wax mox dan ci arab lool lool lool la masa moom la borom maqaama di wax mox dan mox dan boobu moom la maam Thierno doonoon ci sëñ bi kon am nañ mbégte ci toog ci ëttam bii di fi waxtaan waaye bala ñoo tàmbali ci waxtaane nettali gaa yu baax yooyu ci tomb yi luñ ci mën a génne lum néew néew ñu tàmbalee ci weeru koor ci boppam waxtaanal leen ci bañ xam cosaan bi ak li ci yàlla def ndax waxat kaana ramadaanu sahara xayrin wa barakatin ala nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam xaytu akramahu llahu taala wa sharafahu bi nubuwati wa nusoolil waxyi alayhi fi haasa saari almuazam kama manna allahu alayhi wa ala almuminina bihi binnasri almubini ala almusrikina fiihi waxat akrama allahu taala rasulahu wa akrama ummatahu kullaha bi fardiyati siyaamihi wa fardiyati sakaati alfitri tawsiatan ala fuqaraai almuslimina wa tuhratan li ibaadati saaimina kama anna fihi laylat alqadr allati hiya xayrun min alfi shahr man qaamaha imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi wa tilka minahun azima ixtasaha allahu ummata habibihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa lihaada wa lihaada fa inna nabiya wa ummatahu yaxmilaani li saari ramadaana min addikriyaati al atira wa taqdiiri al azim maa laa yonsaa alaa marri samaan ramadaan day weeru yiw di weeru barke boo xam ne yàlla da koo terale yónent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax njëkk ñuy farataal weeru koor wahyu ci weeru koor la wàccoon yàlla xeewe ci yonent bi ak jullit ñi ñu gañe ci ngañaay loo xam ne ci lañ gañe yéefar ba mën a taxaw ndax ba ñuy xeex badar yonent bi da woon da ñaan ba mujj mu ne yàlla sa sa mbooloo su tuuti siidi buñ ko raafee kenn dutu la jaamu ci kaw suuf mbooloo moomee bis boobee la am ndam ba lislaam mën a taxaw day ñaan ba kaala gi rot ne ko li ngay ñaan yàlla nangu na ko doy na kafa kafa kafa yonent bi sallallahu yàlla terale ko terale yonent terale yàlla terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam terale xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci farataal weeru koor ginnaaw bu yonent bi ñëwee màkka ba ca baraxloo ba ca atum ñaareel ba ci baraxloo ñu faral ne farataal koor nag farataalit sakaatul fitri ngir bëgg foqaraa yu ñu am xiit ci biir koor gi kenn ku ne am loola doy li tax ni xorraan musliman fil yawmi xam nga lan la ko ibnu xaasir waxe bëgg laabalit jaamu yàlla ak ñi woor ndax koor dañ koy aj asamaan yi féeg génnewoo muurum koor duñ ko ajji laylatul xadar di yàlla may ñu tawféex mu ne ci biir weer wi te mooy li nga xam ne yonent bi da cee daay daay yéem ca ñu njëkk ca xeet yu njëkk ya jaamu yàlla yi gudd fan gi ñu doon gudd fan ak di jaamu yàlla jaamu yàlla yoo xam ne dañ koy nangu yàlla nag lu yonent bi xeemeem rek mu defal ko ko ci lu gën a gàtt mu daal di defal yonent bi genn guddi goo xam ne kookee ñu doon wax jaamu na yàlla juróom-ñett fukki at ak nangam juróom-ñett fukki at ak ñeent yu teg ñeenti weer mu daal koy defal génn guddi yoo xam ne loole mën mën nañ ko ci am ci génn guddi googee kon ay may yu mag la yu yàlla jegleel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi alayhi salaatu salaam ako xeetam am nañ ay zikriyaat xatira yoo xam ne duñ ko mën a fàtte mukk ci koor ci lañ gañe badar ñaa ci lañ ubbi màkka ci la lu baree baree bare ci lislaam ko moo tax sëñ bi tuddi ko saharil amaani wal muna wal fayadaan mooy weeru amaan mooy weeru euh, mébét mooy weeru walangaan xéwali yàlla yooyu walangaan ci la am amaan it mooy mooy kóolute yonent bi alayhi salaatu wasalaam demee ci taarixu tabari yu da cee da caa da caa wax na ci ramadaan taxannusuhu fi ramadaan wasafa tabari fi taarixi bil isaani taxaru rasul taxar taxannusa rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi xaari Hiraa fi sahri ramadaan fa xaala kaana rasulu yujaawiru fi Hiraa min kulli sanatin shahran wa taxannahu attaabudu fa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yujaawiru fi saalika sahri min kulli sanatin yutximu man jaa min almasakini fa isaa xadaa jiwaaruhu fa isaa xadaa jiwaarahu min sahrihi zaaka saalika kaanat ilkahbatu awal awal awalu maa yabda'u bihi awalu maa yabda'u biha isan sarafa min jiwaarihi qabla an yadxula baytahu fa yatuufu biha sabhan aw ma shaa allahu min dalika suma yarjihu ila baytihi hatta isa kaana assaaru alladi araada allahu azza wa jalla fihi ma araada min karamatihi min assanati allati baxasahu fiha wa dalika fi sahri ramadan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónne eh, tabari yi dafa ca ci taarixam ca xaajub ñaareel ba ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam at mu jot bu weeru koor booba farataaluñ keeru weeru koor waaye saa bu jotee dana dem ci xaaru xiraa sax fa weer di fa def taxannus di fa jaamu yàlla taxannus mooy taabud rek sallallahu eh, eh, sallallahu alayhi wasallam bu fa demee dafay sax weer di leele miskin yi bu jiwaar ba noppee nag mu daal dem ca kaaba ga ci lay bu noppee ci jiwaar bi kaaba ga lay njëkke balaa dugg néegam war ko juróom-ñaari yoon wala lu ko yàlla xiir daal delluwaat këram nag ba ci at mi nga xam ne ci la yàlla namme nar koo yónni nag hatta isa kaana sanru lasi araada la asa wa jalla fihi ma araada min karamatihi min min alsanati allati bahasahu fiha wa dalika fi sahri ramadan wa nafhamu min hasa anna rasulana al kaana yaxloo bi nafsihi fi qaari xiraa fi ramadaana min kulli haamin wa mahawul qalilu min assaab yonent bi ñu daal déggee ci lii ne at mu jot kon daana wéet ci xaaru xiraa moom ci boppam ànd ak dund ànd ak yóbbal bu néew faxat kaana min tabihi alxanaahatu wa soodu naka jekkum yonent bi daa bind woon doylu ak dëddu fa yaqdi haasal waxt fi tafakkuri wa taamuli wal ibaadati fil kawni wa xaaliqihi yonent bi nag baaxoon saa bu xaar saa bu koor jotee rek mu dem xaaru xiraa di seetantal mbirum yàlla ndax àlla alxuraan lu mu wax rek dana infisarik laay ayat li xam ne yatafakkaroona moom mu nag mu ne fa di xool fi xalqi samaati wala di waxte laa fi alsinatikum wa alwaanikum lépp mu di ko xool rek di a xam yàlla rek ni ko noonu ko yàlla waxe di xalaat rabbana maa xalaqta haza batilan subhanaka faqina azaba annar rabbana innaka man tudxili nnaara faqad axsayta wa maa li zalimina min ansar a rabbana innaka man wa maa li zalimina min ansar rabbana samina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna wa tawaffana maa al rabbana wa atina maa wa'adtana la tuxzina yawma al-qiyamati innaka la tuxlifu al di xeet xeet xalaat mbirum yàlla rek di ne ca loola ne ca loola ne wa munaqizaatiha sori lool soxla yi adduna yi ak li koy naxal naa iyan bi nafsihi xam tarafi qurays wa razailiha aljaahiliyati mubtahidan xam dalalaatiha allati jaxalatha tanxamisu fi hibadati al wa tabtaidu xan hibadati al waahidi moom mooy at mu jot mu dagg soxla yépp soril boppam tarafu gi xorey si doon dund mooy dund xéewu googu ñu doon dund ak réere googu ñu réere nekk ci seeni rasaayil réere yàlla seen réer googee mu sori ko daal dugg foo xam dafay làqatu seen réer gi nga xam ne moo leen tax a nuur ci jaamu xiram moo leen tax a sori jaamu yàlla bu ko dee foofee lay làqatu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ci làqatu googa ne ci làqatu googa nag ba yàlla wa euh, tawféexal ko nag wàcce ci moom wax yi bi mu amee ñeen fukki at wa hinamaa balaxa moom salaam sum arba arbaxiina min umrihi al arbaxiina min umrihi te wa sinnu tamaami nodji wa kamaa wa kamaali rujoolati ci la ci la ak rujoolatu di mat ndax dégg nga yonent yëpp xataa isaa balax asuddahu wa balax arbaxiina sanatan ci Muusaa dégg yàlla ni ko ni ko ci yàlla waxe bi mu ba mat ba ñor yonent bi ba mu àggee foofee nag wa fi sahri ramadan wa fi xaari xiira kaana awalu nusoolil wahyi xalaa xalbihi wa bihaasa badaa suruqul islaami li yubaddida zalaamal jaahiliyati foofee ci xaaru xiraa nag ci la wax yu tàmbalee wàcc ci xolub yonent bi kaana awalu nusulul wax yi xalaa xalbihi mu daal lislaam daal di tàmbali leer daal di tàqale nag tasaare nag lëndëmu réer tabari wax na ci taarix taa wax na ne inna min al muarriqina man yuhaddidu haasal yawm bil yawmi saamin wal xisriina min ramadan am tabari yu na ci taarixam ne am na ñu ne bis boobee ñu njëkk wax yu yonent bi mi ngi tollook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor wa minhum man yuhaddiduhu bil yawmi raabihi wal xisriina am na ñoo xam ne dañ ne ci ñaar fukki fan ak ñeent ya la wa minhum man yuakkidu annahu nasala li sappi xasrata xalaat min sahri ramadan am na ñu ne fukki fan ak juróom-ñaari ci la yàlla njëkk wàcc ci moom wax mu tolloog bisu badar ñi ko wax fi ñu ko sukkandiku muttaxidiina mimma nasala min xawlil xaqi tabaraka wa taala xarinatan xaysu qaala ñoom it seen dalil mooy li yàlla wax ne wa maa ansalna ala abdina yowmal furqaani yowmal taxal jamhaani kon mel na ne wa maa ansalna ala abdina yowmal furqaani ku ne xam na ne loolu ba dar la woon kon am na ñoo xam ne seen dalil ci jàpp ne fukki fan ak juróom-ñaar la woon bis boobu de loolu mooy ci seen dalil wa huwa wasfu liqaail liqaail rasuli sallallahu bil musrikiina fii badar faxat kaanat fii sabihati sabata hasara min ramadaan ci la liqaa u fi la liqaa bi amee woon faxat kaana fii sabihati sabata hasara min ramadaan loolu nag ana lu mu dëppooloon ci weeru tubaab waxat waafaqa haasa sahru yanaayir min sahri milaadiya ci la war a tollool bis bi njëkkee wax yonent bi boo ko doon xayma mi ngi tolloog janvier ci atum 611 ci miladiya ci ne ko tabar yi nettalee wax na ne nit aw ana nu nusoolul moom tabar yu nettali la ne ana awala nusoolil quraan yi kaana fi yawmil usnayni fi yawmil lisnayni ci bisub altine la mi ngi ko daliloo ci yonent bi dane dalika yawmun wulittu fiihi wa yow yawmun buhistu aw unsila alayya fiihi kon dafa mel ni yonent bi bis bu lañ ko gënee la gënee adduna ci lañ ko njëkk ci lañ ko yónni wala ci lañ njëkk wàccee ci moom alquran ibnu hisam boo wéyelee nag moom moo ñu gën a nettali naa an xaasal yowmi alxaalit ala samaani xaysu yaqulu xata isa kaana alchahru alladi araada allahu taala bihi fihi ma araada min karamatihi min alsanati allati baasahu allahu taala fiha fiiha wa zalika sahru sahru ramadan xaraja rasulullahi ila hira kama kaana yaxruju li jiwaarihi wa maahu ahluhu xata isa kaanat leylatu allati akramahu llahu fiiha bi risalatihi wa rahima alxibaada biha jaahu jibril alayhi salaatu wassalaam bi amrillahi wa yastakmilu ibni hisam fi siirati li yanqula lana mashadan aziman fi zalika al yawmi wasafa fihi nabi sallallahu alayhi wa sallam kayfiyata nusulil wahyi alayhi alayhi fa yaqulu fa jaani jibril wa ana naimun bi namatin ay bi wihain min dibaajin fihi kitabun fa xaala iqra fa qultu ma aqra'u fa qattanii bihi mu nargan ma yonent bi ibnu hisaam dafa nettali ne yonent bi dafa baaxoo fam daa dem muy xiraa mu dem mu dem fa ba yoon wii nag mu génn yàlla dogal nag ci lañ ko war a yónni ba mu fa demee ba dugg fa moog waa këram nag ba guddi ga ñëwee yàlla teral ko ci yónni ko ngir bëgg a yërëm jaam ñi ci la yebal jibril bi mu yebalee jibril nag ma bàyyil leen yonent bi mu nettali leen ni ni jibril ñëwee fi moom jibril daa ñëw daal ne yonent bi nee na fa jaa ani jibril waanaa naayimun bi na matin bi wihaa ay bi wihaa in min dibaajin fiihi kitaabun fa xaala iqra fa qultu maa xabasa nafsi bihi dafa téye sama noo ba mënatumaa noyyi xatta mooy ay xabasa nafsi mooy damaa nargan rek ba mënatumaa noyyi xataa sanantu annahul mootu ba ma yaakaar ne damay fi bëgg a jëlee su ma nii fa xaala mu ne ko maa aqraw mu daal may defati na ma defoon fa xatta nii mu daal may nargan ba mënatumaa noyyi xataa sanantu annahul mootu su ma arsala nii fa xaala maa saa aqraw ma soog koo laaj ne ko lu ma war a jàng yonent bi nee ne maa qultu saalika illa ftidaan minhu an yahuda lii bi misli ma sanaa bi waxuma ko nee na kat bañ ma bañ mu def ma lam ma defoon rek moo tax ma ne ko lu may jàng mu ne ma iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi ma lam yaxlam foofu la wax yu tàmbalee foofu la alquran tàmbalee di wàcc yonent bi alayhi salaatu loolu mooy cosaanu koor kon koor loo ciy màggal da xam ne yaa ngi màggal juddu xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi màggal juddu lislaam ci boppam ci la tàmbalee yaa ngi màggal it juddug alxuraan kon loolu lépp dafa làmb ci koor kon koor day lu réeréeréy moo tax nit yàlla yépp fonk ko moo tax sëriñ bi nga xam ne amuñu lu dul moom it mu fonkoon ko fonk goo xam ne yemaliwu ko woon ak dara bi nga xamee ne si nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamee ne si jàng na loolu ba noppi nag yonent bi nag eh, ci ni ko eh, jibril ne ni ko eh, yonent bi nettalee nee na bi ma génnee ba dem ba ca doj wa bu ma xoolee asamaan si rek ma gis jibril sàppe ci ay tànkam ci kaw asamaan si fu ma xool rek seen jibril fu ma xool jën jibril fu ma xool jën seen jibril mu daal ne ma yow yaay yonent bi man maay jibril yàllaa ma yónni ci yaay ab yonentam wet gu ma xool rek mu wax ma loolu wet gu ma xool rek mu wax ma loolu ba mujj xadija mu ngi yónnee ci man di jaaxale naan ana yonent bi waxtu yu ñu ko daa gis gisuñ ko ci ndeke booba mi ngi xool asamaan si rek nee na fu ma xool nag day mel ne ki ma gisoon fii moom laa gis fee foofu la lislaam foofu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tàmbalee kon koor loolu mooy li nga xam ne moo ci njëkk a làmb njëkk ñu di ko farataal dafa mel ne yiw yépp yàlla da ko làmboon ci biir weeru koor ngëneel yépp yàlla da ko làmboon ci ngir ci wiir ko biir koor ëmb ko ci ba farataal ko jot nag ci yonent bi yàlla farataal ko te naka jekk nag yàlla daa fonk koor ba ñii fi jiitu woon ñëpp kama kutiba ala lasina min qablikum la alquran wax kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lasina min qablikum ñi yonent yëpp daañ leen daanañ farataal ci ñoom koor kon koor day loo xam ne day weer woo xam ne sëriñ bi daf koo fonk lool te fonk looñu ko lool doon weer woo xam ne bu ñëwee tus fadu sayaatiinu dañuy njoñ seytaane yi wa tuftaxu abwaabul jannati dañuy ubbi bunti àjjana yépp fiihi yaxarisul muslimiina muslimoona xalaa xiraatil quraani wa tadabburi maani ci la jullit ñi di settantal alquran wa yakuunu tamaamu sawmi bi qaddi nasari wa kaffil asa wal bu'di anil xiibati wal namimati wal fuhshi bil qawli wal fi'li wal jafaa'i wal xusuumati wa kasaa kaffu sam'i anil isqaa'i ila kulli makruhin wa kafful jawaarihi anil aathaami fa yabqaa qalbuhu mutaalliqan bi dikrillaahi bayna alxawfi warrajaa'i mashquulan laa yatlubu siwa alqabooli wal afwi wal xufraan loolu mooy koor dëgg bu koor jatee ci la ñuy njoñ seytaane yi ni ko suñ bi waxe wa saafiran kulla seytaanin bi ma mahahu wa motifan li sawil insaani bi safadi ci la may ñi nga xam ne ñoo ciy def ñoo ciy defu rafetal nag ci lañ leen di indil ay may safadu bu ak ak may ci la ñuy njoñ seytaane yi di ci ñi nga xam ne ñoo ci ñooy woor na mu waree nag ñu di leen ci indil ay may to koor gu mat nag mooy nga damm sa gis bi fexe ba doo lor kenn doo jëw doo rambaaj doo wax lu ñaaw ci bëccëg bi doo ci jëf lu ñaaw doo béccingeel kenn doo xuloo kenn doo sa noppi doo ci dégg loo wër te dégg sa cër yi doo ci xool lenn lu naqar yàlla doo ko ci defit sa xol bépp nga aj ci yàlla di ko xalaat di di boole ragal ak yaakaar loolu mooy koor dëgg doo bëgg ci yàlla lenn mu defal la ko lu xabool ak xafu ak xufraan yàlla na ko yàlla defal bu ko defee nag boo ko defee rek da daal di dugg ci koor gi nga xam ne moom la sëñ bi bëggoon di ci soññee bu jot da ngay di dugg ci euh, mustawa boobu boo ko defee nii yàlla na ci yàlla dimbale bu ko defee nag buñ ko defee noonu nga xam ne moom la ñu lislaam sant ci koor ci lañuy ñuy door a yëgee ci sun xol ci lañuy ñuy yoog yëgee nag ak dund ci euh, dund ramadaan ndax ramadaan lu euh, ay ajwaa la ñu ngi koy wax ne al ajwaa u ramadaan ya lu ñu war a dund la cib xol sëb cir soog koo dund sëb gis soog koo dund bu ko defee nag ngeen xam ne sëriñ Tuubaa dafa wax ne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 wan nawaahi turuqun ila nnaari allati waqawduha annaasu wal hijaaratu matee kunta xalaa amrin faxat salakta tariixal jannati wal xaksu bil xaksi mu ne ndigal yi mooy yoonu àjjana àjjana ji nga xam ne moom lañ daal gaayu ragal yàlla yi tere yi mooy yoon yi nga xam ne moo jëm ci sawara wa nga xam ne mattam mooy nit ñi ak doj yi saa nekkee ci ndigal yi na la wóor ne am nga yoonu àjjana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 mu ne boo waaxoo jëm déedéet man de ma maay jum rek lée nit ki yaa ngi nii liñ la digale liñ liñ sama borom digale ngi nii ci sa kanam lii la suñ borom tere mi sa sa gannaaw li nga bëgg ñu bëggal la ko tam lay jariñ te du la lor ngi nii ci sa ndeyjoor liñ lay tereet tam lay lor te du la jariñ ngi sa càmmoñ ok noonu la moo ko tiimee nii laa ko mën a xam nee na boo waaxoo jëm ci lii ñu la digal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 ndax wala taxsibanna allaaha yaxfulu saatan wala anna maa tux fii wala anna maa tux fii alayhi yaxiibu bul yaakaar ne li fu bul yaakaar ne yàlla dana sàggan dara ci ci li ngay def wa ma laahu bi xaafilin xamaa yaxmuloon loolu bari na ci alxuraan wa ma rabbu bi xaafilin xamaa yaxmuloon it bari na ci yàlla lu def rek lu ngeen def fadduwul ci moom alam tara anna al yawma daahibin wa inna qadan linnaadiriina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 nee na kilifa gi ma ko nett ci wàkk si wàkk si nee na nee na sëñ Soosa Njaay ko nett li sëñ Soosa Njaay mi daa jàngale nee na mi koy tàggee Ceerno de maa ngi toog waaye nee na Ceerno dane moroomam déefi moom sëñ Madu Lamin Gay moroomam déefi la wax <laughs> ah, moom moo wax lii may bëgg a wax nag xaritu xaritu maam Ceerno waaye nee na bi ñu ko teggee nii la def baaraam bi ne moroomam déefi waaw <laughs> ah.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 nangam la daal koy leen mu daal koy mu daal koy sànni leetar bi xam ne xam ne xam ne leetar jàngagu ko kon noonu lañ doon def la xam ko léegi nag li ma leen di wax nag mooy ku ku yàlla déggale woon na leen déggale goo xam ne dama ci joxe rek benn firnde boo xam ne ñu bari xamuñ ko mooy bis bi sëñ bi waa ji ñibbisi Tuubaa loolu sëñ Ibrahima dama ko nettali maam Thierno.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 xëy na xataayu waxtu bi dong moo tax waaye. Ah, kon ñu yokk ci eh, yeneen sax waaye eh, hmm. incha kon ni ñu def mooy dañuy jox sëñ Abdul Aziz mu sëñ mu daw bàll su ko defee moom tamit ah, mu ñëw. mbàkk feeñal yeneen dolli ci. lii nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaane bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama tasliman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 ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax xam naa cant gi eh, sëriñ Bachir mi yor baatub sëriñ bi mooy Cheikh Mamadou Bachir loolu la war man cantu jataay bi ak mboolem yi rek nii rek laay wax waaye eh, cant bu mag yépp sëñ bi moo ko yore waaw eh, di di di di bëgg lool ci ñëw gi di wax ni bi nga agsee taxaw ci buntu oto bi wàcc boo ñaanoon dellu képp doy noonu euh, wa bi nga agsee itam li nga fi wax euh, doy na sëkk ci wàllu euh, koor gi ci wàllu laylatul xadar ci wàllu badr ahlu badrin loolu doy na sëkk ba ca des tam nga ñëw nag ci jëmmi sëriñ bi ak jëmmi maam Thierno wax ci loo xam ne lii ñun mooy sunu royukaay ndax euh, sëriñ bi lislaam bi mu ñëwee kenn ku nekk ak foo di nekk ci àdduna bi benn di benn benn benn diine dong la mooy mooy lislaam amatul jeneen diine beneen yonent rek la amatul beneen yonent waaye kenn ku nekk bi mu bi islaam ñëwee daa fekk la nga xam ne lislaam nanguwu ko mu génneel la ko ci la nga xam ne bàyyi islaam nangu na ko mu bàyyee la ko ci loolu nag bi sëñ Tuubaa ñëwee liggéey ci liggéey bu mag mooy dafa fekk loo xam ne lii suñuy aada la te lislaam nangu ko mu bàyyee nu ko waaye fekk na boobu itam eh, tubaab yi nekk fi eh, colonisé nu eh, jël tam seeni aada jël seen diine bëgg koo tasaare ci suñ biir te sëñ bi itam taxaw ci kaw loolu nga xam ne moom lislaam bàyyee na ko nu moom ko nan ko jël buñ buñ ñàkk bopp ba bàyyi sunuy aada joo ne ji lislaam bàyyee nanu ko moo tax euh, boo duggee ci dëkk boo gis dëkk murit boo dem li ñuy wax piyaasa wala li ñuy wax euh, centre de ville boo demee da ngay fekk kër sëñ bi féete sow nga gis jumaa ji nekk ci digg bi nga xam ne mooy centre ville bi man man si sa boobu li ma ko gis ci àdduna bi bëriwut dëkk boo gis sëñ Tuubaa sanc ko këru sëñ bi kër ga ma nga féete ca sow jumaa jaay nekk ci digg bi mooy nekk ci digg dëkk bi loolu bëriwut ci àdduna bi loolu lu lu lu ci xeexu sëñ bi la bokk beneen ba ci des moo di eh, gi nga xam ne ak aada ji nga xam ne nit la bàyyee nañu ko te tubaab yi taxawoon temm ci loolu du fi amee boo xoolee colu col gi nga xam ne moom la ñuy sol ñun murit yi eh, te te lislaam nangu ko bàyyee na ko bi tubaab bi ñëwee moom daf ko dindi woon ba bu yàggul rek boo demee ndakaaru boo solee tubéy ni ñuy wax caaye boo ko solee wala nga sol xaftaan euh, kenn du la faale boo duggee ci bureau sax di wax di di nuyoo wala yooyu kenn du la wuyu dañuy jàpp ne kii dof la kii ku nettadiku la ku ku xamul dara la ba bu yàggul rek fii ci assemblée national boo solee yére yi wolof taxaw ci bëgg a dugg doo dañ naan la doo dugg maa ngi fàttaliku Cheikh Abdoulaye Dièye euh, yàlla na yàlla yoon ñëw na buntu assemblée sol xaptaan yor kaala wala mu sol dara yor kaala ñëw benn ma ne ko doo dugg dañ maa jox ordre ne ma doo dugg mu ne ko lu tax mu ne ko col gi nga sol moo tax kon tubaab yi yàgg na noo xeex loolu ngir bëgg ñu am complexe denc eh, sunu aada yeeg sunu sunu col geeg sunu lépp ñu ñu bàyyi ko te jël seen aada jël seen col eh, jël seen diine waaye Sëñ Tuubaa liggéey ci liggéey bu rëy rëy nag ci loolu ndax boo xoolee fi mu toll nii mbubb yi ñuy sol noonu euh, ak ak ak ak ak col gi col gi ñu sol nii euh, amut du du du colu naar ba bënut du colu tubaab tubaab tubaab am na col goo xam ne baax na bënut waaye nag nit ku nekk euh, li nga baax le dañ la dañ la koy bàyyee du jagee ni li nga li nga li baax fee lu baax fee foo gisee lu baax fu ne am nga sañ-sañu jël ko waaye bàyyi sa lu baax na di jël yëfi jàmbur loolu sëñ bi nangutoon ba tax mu daan jël col googu di ko sol man maa ngi fàttaliku rek bu ñu masaan xottil mbubb am na boo xam ne bi sëñ bi danoo xottil ay ay yére daat ko jox ko ñuy wax Cheikh Wade nekkoon na ko ñaw mu mu ñaw ko ba noppi eh, bi mu koy jël si mu di ko léemu da ko ubbi da ko tàlle di ko léemu ni gis muy tubéy tubéy ji nekk ceinture dafa mer lool daan daan ne ma nañ ko dindi waaw ah, na nan dindi tubéy ji ma ne ko li ma ne ko déedéet mu ne ma déedéet lii sax Wade ñëmoo ko yaa ko wax da ngaa bëgg tubaab rek waaye xam nga lii jaarul xam ne kon léegi ñoom dañ doon garder seen seen seen identification bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëggoon ci ñoom waaw ndax am complexe boo xam ne bii dafa amoon ci suñ biir ak tubaab yi complexe boobu nag la sëñ bi doon dindi ci noonu boo xoolee col gii ñuy sol ci col yu murid yëpp muy ay sëñ Suhaybu bu bàyyi laat muy nangam ak yeneen yenn yooyu yëpp foo ko foo gisee rek xamal ne am murid la kon li nga wax nii dellu siwaat ci sëñ bi euh, ak cosaanul yoon wi Eh, ak ak ak eh, solug murit gi lu am solo la néew ma nag bu kenn sol eh, yëre tubaab néew bu kenn sol yëre yeneen ndax lu baax fu ne foo gisee baax na mën nga koo jël waaye nag li nga xam ne ñoom suñ bi da ko daan xeex ba di ko ba ko andi loolu tam lu mat fonk la boo gisee mag ñi daan bañ ay ay kap wala soy tubaab wala nangam loolu booba jubluwuñ ci ne dafa araam waaye complexe la ñuy bañ nga def ko moo tax ñu bañoon ngay jege frontière bi waaw boo boo boo accès ci frontière bu ñu naa laa mi ngi nii dañ naan la boo ko jege moo tax booba boo solee mbaxana mbaxana ab dana ànd mbaxana wax day am cap mais cap bi jubluwuñ ci loolu bu so bu bu naaj wi tàngee nga jàkkaarloog jant bi nga a jël cap bi wàccee ko mu dox sa diggante jant bi waaye tubaab bi nga xam ne moo ko andi nag di ko solal boppam tax na mag ñëpp bañoon ko kenn du ko sol boo gisee tubéy ji tubaab ay kiloot ak yooyu ñu daan sol benn nit bu ma saan taxaw fii dugg ci kër sëñ bi di ko sol amutoon kenn ñëmu ko ndax boobu itam xam nañu araamut xëy na waaye eh, bëgg nañu eh, nga bañ am benn complex ci di di di bàyyi say aada eh, di sol di jël aada aada aaday jàmbar aaday jàmbur aaday tubaab yi te loolu sëñ bi liggéey na ci liggéey bu am solo kon nag sëñ bi noonu rafetlu nañ bu baax a baax a baax a baax ah, waxtaan wi dëkk bii nga dëkk bi nga ñëw ni tey jii dëkk bi sab dëkk dëkk bi sëriñ Tuubaa ko mam maam na dëkk bii moo ne woon maam Thierno Ibrahim lu loo fi fekkut awma ko dëkk bii nga ki nga li nga wax nii léegi ci maam Thierno ci bi ko euh, bi mu ganee àdduna ba ni mu euh, sëñ bi demee musta tàggoog moom euh, man mas namaa dégg sëñ Modou mu wax ne maam Thierno wax ne ko ne sëñ Touba musuma jàngal benn téere ba mu jeex lu jiitu géej gi lu jiitu muy dem ci géej gi téere bu may jàngal léeg-léeg mu xaaj léeg du xaaj waaye def naa ma Ceerno may naa la li ci des te nee na li may may laa gën a dégg ci li ma doon jàngal ndax naan ko Ceerno dama laa yàkkamti kon xëy na booba xamoon na ne am na lu mu ko war a liggéeyloo ci kanam waaw kon dëkk bii ak fi nga nekk nii dëkku sab dëkk dëkkub Sëriñ Tuubaa la xam naa sax waruma cee wax ndax sama kilifa bi te moom lool mu ay waxan la waaye <laughs> waaw waxi sëñ Bachirou la waruma ko wax moom <laughs> waaw loolu loolu du du du du wax yi du samay wax waaye li ma jubloo wax rek moo di li sëñ Touba bëgg ci nun muy doon ab jullit bu wér bañ a doon ab naar bañ a doon ab tubaab waaw loolu la sëñ Touba bëgg ci nun loolu nag fii dong lañ ko mën a amee li ma la wax ci dëkk yi nga koy jàng dëkk tàmbalee ak col gi ak dox gi ak waxin yi dafa am sama benn waay boo xam ne yooyu dafa dem màggalu tubaa boori chapon maa xam ne màggal Tuubaa da ko fekk mu sol benn bàyyi bàyyi laat nee na mu ma xëy ne naan tey jii de bu ma gisee kenn koo xam ne kii danaa ko mën a teral ngir bisu bis bi dem ci restaurant bi ma daan añee ndax bëgg faa gis kenn rek ku ma jëndal dara fay ko ndax barke loo ko ci bis bi waaye nee bi ma duggee ci restaurant bi bàyyi laat bi ma sol ndekete am na murit bu ma séen ba mu foyal ma bi ma demee di fay ñu ne ma kee fayal na la ma ne ma gis ko ba ne ma ñëw ne ko waaw lu tax lu xew mu ne ma ah tey kat day màggalu Tuubaa ma séen nga sol baylaat ma xam ne murit nga ma ne naa barkeelu ci bis bi fayal la ko mu ne bis booba ak léegi nungatumaa summi sama baylaat bi waaw kon kon kon aada euh, sunu aada ji nga xam ne lislaam euh, euh, bàyyee nanu ko nanu ko nanu ko sàmm nanu ko nanu ko téye Eh, daa am benn bis boo xam ne bii dañoo nekk ci mu Njaayum alaaji ma yaasin toog fa am benn kilifa gu kilifa goo xam ne gi dafa dafa soxnaam dafay nekk boobu téléphone yi ci lay téléphoné mm, waaw waaw waaw waaw bu léegi mu mu mu téléphoné ci téléphone kër yi lay jël aw carte di ko jël bu dee ci téléphone yu ndaw yi day day day day eh, day gaaw bu dee téléphone kër yi nag day day day bari mu woote ab sëriñam sëriñam bëggut ci yoon wi mu nuyu ko ba àggal ne ko kaay ma jox la ma jox la sama bokki dëkkandoo yi mu jox ko Moussa Ndiaye ñoom ñi fi nekkoon bi mu paree mu ne ko xanaa ñoo ay murid lañ mu ne ko loolu ko xamal mu ne ko waxin bi waa waa kër maam borom Tuubaa noo waxee noonu wax ñu daa tegginu bi soxna si génnee ma leen nag nan nan waxtaan ci baat boobu ki nekk ci Sénégal nga wax fii mu ne kii ci waa kër maam borom Touba bokk ndax wax yi teggeen ji baat boobu nañ ko sàmm bu wax waaw kon waaw kon ay ay dafa am dafa am solo yar bi dafa am solo euh, col gi dafa am solo te sëñ bàyyee nañu ko euh, kon sëñ bi noo ngi lay sant bu baax gars yi ne dañoo am ay laaj yu ñu bëgg a tàmbali moo tax xam naa nu gàttal ko noo ngi jéggalu bu baax ndax nekk sa diggante ah, <laughs> nekk ci sa diggante ñaar dafa néew néew say kilifa euh, te amoo xam-xam amoo dara dafa neexuta waaw waaw noo ngi noo ngi jégalu bu baax di la di la sant itam eh, di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla bàyyi la fi may la wér ci barke weeru koor yi eh, yéene sëñ Abdul Xaadir yéene ji mu yéene woon ci sëriñ bi yéene ko ci njaboot yàlla na yàlla may fan bi ba nga àggale ko man xam naa la bu baax xam naa ne itam li ngay def ci koor ah, leer na ma ne itam juróomi minute koo ko jox ci koo ko jox ci sa temps ci koor ah, fonk nga ko ah, ndax man koor gu ne si naa fi dinaa fi toog ba yaay jiite naa fi toog doo recevoir nit ñi waaw ba mën naa wax ne daanaka boo fa jógee fajar jot na kon xam nañ ne amoo temps waaye li mu jox nag li muy li muy kii kii lu rëy la ci noonu. Ah, waaw ah, yàlla na la yàlla fay. Ah. di barkal Serigne Touba. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Asi tubaarkàlla sëñ bi bég nañ waaw li nga wax it baax na ndax nit lu muy nuru lu muy woote da ko war a nuru daa war a feeñ ci col ma ca wax ja ci jëf ja waaw loolu taxam sëñ bi indi noonu nga wax sax col meeg ba kenn du ñu laajte <laughs> ndax amut amut cuub googu ku ko gën a rafet amut bu mën a sanu me ne laay sibqa yàlla na ci yàlla dimbale bañ am bañ am ci am ci ak dégg ak topp rek ah, bañ ko soppi ah. léegi li ma ci indi sëñ ci ko ngeen ma doon laaj sëñ bànji sëñ Wadra mooy band mooy mooy sëñ bànji Njaay nee na dafa dafa mas a dem ci sëñ bi neena na nuyoo bay jóg mu ne ko ah, yàlla de boo ko ne ananga rek mu ne la maa ngi nii nee na ma ne ko ah nees koy waxe ane nga moom suñ bañ jaay ko noonu wax rek suñ bi la mooy mu ne ma da ngay nekk ci li bëgg li mu digle mu ne lu lay waxe maa ngi nii mu ne loo bëgg mu defal la <laughs> kon mel na ne ku nekk ci ku nekk ci e, ndigal yàlla yi tere yàlla yi rek boo ñaanee day daal day daal nangu fi saa si li nga bëggit yàlla dala koy dàkkal dala ko defal te loolu booy xool rek daa ci gis firnde ñi gën a wàcc adduna rek ñoom la adduna gën a jublu loolu kon nag lan na ci yàlla dimbale loolu moom xam nga loolu leer na na ñëw waaw waaw naa tontu bi mu tontu bi mu doon tontu léegi ci laaj la bokkoon waaw kii itam nee na ba xam amut yenn xikam yoo xam ne jëlee nga ko sëñ Abdul Xaadir. waaw pour mën cee dolliwaat. yi yi ñu ci mën a dolli. dégg ci sëñ Abdul Xaadir waaw. <laughs> xanaa ma xalaat rek waaye <laughs> daa yaatu li ma ciy dégg dana bari. daa yaatu. waaw <laughs> ma itam bu dee. gis nañu ne ku taxaw woon ak sëñ Chouaïbou ndax am na ci ay nettali yoo xam ne euh, jële nga ko ci moom waaw. yu bari yu bari ci moom laa ko jëlee sax <laughs> lu baree baree baree baree bari ci lu ma xam ci kilifa yi yii ci bari moo ko daa wax moo ko daa nettali lu ma xam lu bari ci xekkam yu bari yu ma xam waaye dama du mën a jékki-jékki rek bu ñu waxoon ba wax ba lu ci bokk rek ba wax ma lu ci bokk rek ma daal ci ma a tontu waaw waaye dama mën a jékki-jékki rek. xalaat ne nangam nii rek déggoon naa ko suñu sañ waaye daal bu fekkoon daal bind nga ko nii ma xalaat ne sañ na ci lu kenn sañut mën na ci lu kenn mënut am na ci lu kenn amut <laughs> loolu sëñ <laughs> noonu boo ko waxee mu fàttali ko mm-hmm. <laughs> loolu la woon moom ah. kii itam mu ne ndax nettali yu mel nii ndax am na téere boo xamante ne ñu ngi ko ci yaxal ak yooyu maa ngi koy jim di waaye lu mel ni lii rek laa koy def ay ay xët di ko bind rek denc yoo ci jëli yëpp daal danaa ko bind ci kayit di ko denc moo ci soxlaa xool ko nii rek génn génn ci am na ci yoo ne it yoo bi am na ci yoo xam eh, naa ko bind Ah, waaye na daa daa kii yoogut daal dafa dajalee guñ ko comme ni gaa yi farlu nii dafa def cub téere daal defuma ko defuma ko waaye nag li karnoor nañ ko nii daal lépp hmm. ñu fàttali tam ne mbokk yi képp koo xamante ne am na ñuy laaj euh, waxtaan yi nga xamante ne dinañ koy amal fii diggante 2006 ba fii ñu toll tey képp koo xamante ne soxla na ko bu duggee ci telegram bu Alwafa mën na ko am telegram bu Alwafa Daarul Mooti mën naa am waxtaan yi su ko defee itam waaw rajo yi nga xamante ne ñoo ko doon ñoo ko doon jàllale itam euh, rajo Daarul Mooti bi euh, doon na ko def direct euh, suba itam incha allah dana ko jàllale waat waaw suba incha allah dana ko jàllale su ko defee itam waaw Touba Mbacke FM itam RTS Touba mooy RTS suba waaw moom dana ko jàllale 9 suba. Euh, rajo bi ci Louga yitam dana ko jàllale moom tamit mu ngi jàllale waxtaan yi mooy leer gi FM daara ji FM itam nekk Kébémer moom tamit dana jàllale waxtaan yi waaw Carrefour FM rajo bu Bambey ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax sore nañ waaye teewut waxtaan yi fi jaar yëpp ñoom ñu ngi koy jàllale su ko defee ICAP FM itam moom mu ngi jàllale waxtaan yi Bawal Média itam direct la koy def bu noppee itam dana ko tegaat Lamp Fall FM itam dana ko jàllale 23 heures Sud FM dana ko jàllale vingt deux heures ba ci rajo yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew itam ak mboolem sit yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu communication te amal Mouhalim info ak yooyu yëpp ñu ngi jàllale waxtaan bi ak xabaar info ak mboolem organes yooyu nga xamante ne ci WhatsApp lañ toll ak ci YouTube bi ñu ngi jàllale waxtaan yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax.